màggalu ren bi taxawaay yu am solo lañ ci fas yéene taxaw li ci jiitu mooy tàmbali nañ ko muy activité de prévention yi mooy yeete bi ñu yeete ak wax nit ñi risques yi nga xam ne moo gàlloo ci fu mbooloo di daje ak itam bu ñu fàtte ni Covid bi jeexagul ñu gën a farlu gën a euh, aar suñu bopp ci loolu ñu ngi ci yee askan wi Euh, district sanitaire yi ànd nañu ak acteurs communautaires yi relais yi bàjjanu gox yi ak acteurs communautaire yëpp def ay plaidoyer def ay visite à domicile def ay fora ba pare def ay session de dialogue communautaire pour mën a waxtaan ak askan wi ba gindi leen ci wàllu nu ñuy ñoŋalee seen wàllu wérgu gu yaram euh, beneen pàcc bi tam ci wàllu wàccaay bi mooy service d'hygiène ñu ngi def liggéey bu am solo di def li ñuy wax AID maanaam aspersion intra domiciliaire mooy pompe kër yi ak pompe bërëb yi nga xam ne dañu yëkkati mbali nettoyé ko ñu def fa nébulisation ñu ngi def tamit ay saupoudrage ak yooyu ak itam dem ci marché yi di contrôler qualité denrée yi ak di surveiller qualité ndox mi loolu liggéey la boo xam ne ñu ngi koy def boobu ba léegi ngir màggal gi benn feebar bu juddoo ci ay wàllu ñàkk set wala ndox mu sellul di ci jóge euh, ginnaaw loolu nag ponk bi nga xam ne dañ ko jàpp ci màggal gi te taxaw ci bu baax mooy wàllu ñii euh, aajo paj mu jàmp ñu koy wax urgence ñooñu am na luñ leen jagale maanaam wàllu réanimation ak wàllu service d'urgence yi nekk ci hôpitaux yi ak centre de santé yëpp fex nañ ba yokk seeni doole yóbbu fa personnel bu doy ak garab yu doy ak ay jumtukaay ak ay ambulance ngir ñu mën a taxawu nit ñi ci wàllu paj mu jàmb ñi muy urgence jël nañu wàllu saytu bi nga xam ne euh, xam nga paj mu jàmb day lëkkalee ñu bari ñoo xam ne ku ci nekk day am foo foo nekk ñu jël li ñuy wax régulation mooy saytu bi ñu koy saytu ak di fexe ba malade bu nekk ñu xam fu ñu lay yóbbu ak fañ lay yóbbu ndax di nga fa am place loolu dañ ko dénk SAMU yi nekk fii ci suñu biir région bi féete Touba di doxal liggéey bu am solo ku woote ci quinze quinze mën ko jot su fekkee da nga ko yittewoo wala nga yittewoo paj moo xam ne day laaj ñu jàllale la ci bu gaaw mën nga woo quinze quinze su ko defee SAMU yi mën a ñëw taxawu la yóbbu la fa nga war a dem euh, leneen li euh, am na ay lu ñuy wax camion mobile de chirurgie. dañ ko yó dañ ko yóbbu Bambey nga xam sooy dugg si région bi foofu ngay duggee ñu fexe ba prépositionné fa camion mobile de chirurgie bi pour faciliter ñi nga xam ne dañuy aajoo léeg-léeg paj mu jam ci wàllu chirurgie wàllu opération ñu mën tàmbali di leen toppatoo foofu ba bañ leen di mën a euh, faj faj mu jàppandi euh, am na yeneen yoo xam ne ñu ngi ko mébét di xaar bés bi jot mooy wàllu euh, aar résidence yi nga xam ne ay kilifa dañ fay daje muy résidence sëñ Touba nga xam ne dañ fay eh, dalal ay gan ay kilifa yu mag nga xam ñooñu eh, foofu ñuy nekk day jar ñu yóbbu fa ay docteur yuy toppatoo wàllu urgence ak mën leen taxaw bu baax ndax bërëb la boo xam ne génn fa malade di ko yóbbu hôpital léeg-léeg day xaw a xat ba tax dañ fa prépositionné benn camion hôpital mu am ay médecins yu jógee SAMU ak ay médecins yoo xam ne ay urgentistes lañ ñu war a taxawu mbooloo mi nekk ci résidence yooyu ak ci wàllu jumaa ji dinañ euh, taxawal benn infirmerie ci biir jumaa ji pour ñi nga xam ne dañu ñëw ci jumaa ji am ay tolof tolof ci seen wér-gu-yaram ñu mën leen fa yóbbu di leen toog ba ambulance di leen fa jëlee di leen yóbbu ci bërëbu fajukaay yi am na aussi ay points yu ñuy wax point avancé yoo xam ne ay kër docteur la yoo xam ne dañuy dem samp ko ci gox goxaan yi ngir jegale paj mi nit ñi nga xam ne dañuy ñëw di màggal si ak population yi nga xam ne dañu sori bërëbu fajukaay yi point yooyu lim bi toll na ci téeméer ak ñett yoo xam ne dinañ ko samp ci biir Touba ak ci biir Mbàkke ak gox yi nga xam ne ñoo nekk Jurbel ak Bambey su ko defee gox yooyu yëpp bërëb fajukaay yañ fay samp dinañ fa yóbbu ay docteur ak ay ay fajkat yu xarañ ngir ñu mën a taxawu mbooloo mi ñëw ci bërëb yooyu. hôpital Cheikhul Khadim di hôpital bu mag nga xam ne tey jii e, yaakaar nañ ne ñeneen ñooy jéggaani wàllu faj waaye Touba moom jéggaani wàllu faj dañ jàpp ne ak màggal gi ak ni ñuy nar a dooleele hôpital boobu. dootuñu jéggaani ji am paj feneen te dootuñu jël nit di ko jàllale muy jëm ci yeneen gox yi ngir jéggaani fa faj ndax hôpital Cheikhul Khadim euh, jumtukaay ya fa war a nekk yëpp mu ngi fa te dinañ fexe ba personnel bi ñu gën ko yokk ngir nit ñi ñu mën leen taxaw bu baax a baax beneen euh, bees bi ci am mooy SAMU euh, régulation bi muy yor lëkkale ñiy faj ñëpp nga xam ku woote quinze quinze rek SAMU dina la mën taxawu taxawaay bu mucc ay ngir yóbbu la ca fa nga war a jëm fa faj mi gën a jàppandee euh, li ci mujj ci yi ñu kii mooy dinañ jël ay fajkat yu am solo euh, teg leen ci li wër jumaa ji euh, wax naa jumaa ji ci biir dina am infirmerie bu ñu fa teg ngir taxawu nit ñi nga xam dañuy am tolof tolof léeg-léeg ci biir mbooloo mi waaye li ko wër dinañ fa teg ay camion hôpital ngir yenn malaat yi ñu mën leen di tàmbali faj foofu ba ba ambulance médicalisée di mën ñëw jël leen yóbbu leen ci structure yi nga xam ne fa lañ leen war a toppatoo ngir gën a taxawu seen wér yaram nga xam ne dañuy ñëw di ñu jàppale maa ngi leen di sant bu baax nag ci taxawaay yi ak ci jàppale bi nga xam ne ñu ngi koy jàppale région bi saa yu ñu dëgmalee màggal gi di leen ñaan suñ ñëwee ñu fexe daal ba góor góorgóorlu taxawu bu baax population yi euh, taxawu ñi nga xam ne ñoo ñëw ci màggal gi euh, loolu daanaka moom lañ daan def toujours mais ñu gën góor góorlu ndax ren particularité bi mooy ndox mi inondation yi ak itam euh, tolof yi tolof yi nga xam ne gis nañ ko ci biir jamono ñu fexe daal ba taxawu population yi ak pèlerins yi ngir ku fi jógee rek sant leen euh, dolli cant gi nga xam ne moom lañ leen jagare at bu nekk di leen ñaan nag suñuy ñëw ñu indaale seen jumtukaay yi nga xam ne moom la ñuy yor di ko seete malaat muy lu demee ne tensiomètre ak stéto ak euh, ay thermomètre ak yooyu yooyu moom day mel ne mason buy dem ci chantier mu yóbbaale turel ak peel ak yi war yëpp pour liggéey ci chantier bi donc ñu ngi ñaan ku ciy ñëw rek indaale bagage yi nga xam ne moom lay liggéeyee ñuy ñaan tamit ñu jéggal ñu condition de travail yi ndax soo dajalee ay fajkat baax na nga teg leen ci condition yi gën a gën loolu ñu ngi ciy góor góorlu waaye ñu xam rek que ni euh, médecine soo koy exercer ci lu demee ni ay màggal walla rassemblement yooyu am na ay lu ñuy wax confort ak ay commodité yoo xam ne xëy na mën nga ko tumuraanke mais bu mu tee engagement bi nga am nga am ko ngir taxawu population yi